ñuy bàyyi xel euh, ñu ngi nii ak sunu maman Joséphine maman Joséphine euh, ñu ngi lay ziar. Euh, maa ngi leen di delloo ziar mhm. samay doom. Mhm. tey ñu ñu am naqar boo xamante ni moo wàcc suñu kaw ki nga xamante ni moo di Jean Paul mhm. tey ji ñu war ko denc tey ban yëg fi mu nekk doom mënuma leen a wax yëg ëpp na ndax Jean Paul sunu doom la woon. Jean Paul seen frère la woon. Mhm. Jean Paul seen lépp. fi mu ne am nañu naqar goo xam ne. am nañu am nañu naqar boo xam ne amul. Mhm. am nañu naqar boo xam ne mënuñu c'est incommensurable. Mhm. fi mu ne lii mooy wane ni tey jii nekk ñun nga xam ne ñoo nekk ci aar bi. nañ leen jàppoo. nañ leen jàppoo nañu ànd nekk benn. ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mhm. lii rek lañu am nag àdduna lii rek mhm. doo yóbbu kër doo yóbbu eh, oto doo yóbbu dara mhm. ni ngay ñëwee noonu ngay demee kon boo xol bu set ak wax ju rafet nekkin bu rafet loolu rek la am moom la ñu yàlla te yàlla may nañu loo xam ne ci aar bi loo xam ne mayu ko kenn muy ànd bi ñuy ànd ñuy ànd bi ñuy ànd mhm. nañuy ànd juboo man man mag laa boo xam ne euh, euh, maa ba tey yàlla may na ma maa ngi ànd ak yéen mhm. yéen mi nga xam ne yéenay jeunes yi mhm. li ma leen di digal mooy ngeen ànd juboo ubbi leen seeni xol ndax lii mooy wone ni on est d'une même famille aar bi ñoo ko bokk amul xëccoo amul ŋaayoo amul jiiroo ñu ñëpp ko bokk ku ci nekk am nga sa place àndaleen ngeen juboo ngir yàlla ak yonne bu ndax aar te ku ci am na xar ñun ñëpp war a am naxar mhm. kenn ku ci ne ci ñun war nañoo am naxar mhm. ku ci am bànneexit ñun ñëpp ñu partagé ko mhm. waaw loolu laa leen di conseillé loolu laa leen di digal nañu ànd juboo ñun yëpp voilà maman Jean Paul était un garçon boo xam ne vraiment euh, bu dee ñun maire yi dañu naan c'est un ange ndax Jean Paul amoon na xol bu baax Jean Paul dafa daan partagé Jean Paul du la romb te du la nuyu man dama ko daan romb mun sol soxtam ci buntu këram bu ma ko rombee rek bu ma séenee rek jóg ñëw si man jàpp ma kotta ma fóot ma ndaxte dama doon wax ne c'est mon fiancé ndax man yéen ñëpp samay fiancé ngeen yéen ñëpp samay jëkkër ngeen yéen ñëpp samay doom ngeen mhm. waaw mhm. donc euh, voilà Jean Paul mhm. Jean Paul c'était l'homme de tout le monde te loolu wane na ko tey ji mhm. wane na ko tey ji ndax gis naa fi sax des des petites filles de douze ans mhm. samay sët mhm. sët ak sëtaat ñu ngi fi taxaw ngeen xam ne Jean Paul nit la en dehors de acting bi nga xamante ni moom la doon def ñu gis ko doon œuvre ci wàllu social acteur yëpp jëloon ko jiital ko ci li nga xamante ni moom la activité yi nga xamante ni moom la ñu doon def loolu lan moo ko mayoon li ko ko mayoon mooy micro li ko ko mayoon mooy mbaaxam mbaaxam moo ko ko mayoon ak yar yaru loolu ko ko mayoon dafa yaru yaru woon xale bu yaru xale bu bëgg nit nit boo ko bëggee rek am nga lépp ci àdduna boo bëggee nit rek sa sa sa sa sa sa sa morom rek am nga lépp ci àdduna en plus d'être un acteur il était un modérateur il était un modérateur il était moom euh, ça on n'en disconvient pas voilà donc euh, c'est c'est c'est c'est notre métier suñu métier moo moo ñaan loolu moo laaj loolu wax ban moment nga dund ak moom boo xamante ni euh, doo ko fàtte li may dund ak moom euh, nga xam ne du ma ko fàtte mooy li may dund ak moom bés bu nekk parce que il habite pas loin de chez moi. Mhm. waaw fu ma bu may romb côté boobu maa ngi koy gis muy toog et dans les dans dans les films il partage il a partagé des films avec mes enfants. Mhm. mi nga xam ne euh, euh, Samir. Mhm. ak Ben. ñuy toog seen wet. donc euh, voilà c'est la famille d'artistes là c'est notre fils c'est notre frère sunu lépp. Merci on, partage, on a tout partagé. Merci beaucoup, maman. Merci. Je vous ziar naa la ziar mbokku téléspectateurs yi tey nag ñu ngi martyrs de l'Ouganda ci décès JP Jean Pierre mooy acteur bu mag bi martyr nag tey ci Sicap laa dëkk mais mbooloo mu toll nii maa ngi ko fi soog a gis koo gis wala koo jib mu ngi jooy ba tam yaa ngi taa actuellement ñu ngi ci mees bi mees baa ngi nii xam naa ni dans vingt ou trente minutes normalement dinañ jóge fii jëm ci cimetière yi mais benn moo laay dégg ci xale bi mooy prêtre bi léegi moom la wax dafa baax ku yiw la woon Euh, donte Sicap la dëkk martir mais boo demee église Grand Yoff ba dafa doon participer boo demee ay kermesse cathédrale daf ci doon participer lépp lu mën a jàppalee ay nit rek ngir ñu am dara rek moom da ci doon jàpp léegi wàllu acteurs yi mu seqaloon milieu cinéma bi tamit koo gis koo jib du bëgg a wax parce que mu ngi jooy danaa la xolam dafa tooy donc moom daal en grosso lu nit ñi di wax daal mooy nit ku baax la woon te baax ëmb na lépp mu ngi noonu. tey boo xoolee xamante ni waaw d'abord ñu nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi suivre ci euh, Mprod ak ki nga xam mooy Univers Info comme ni ñu ko defalee ci suba ba léegi ñu ngi ci messe bi nga xamante ne moom mooy suñu acteur bi nga xam ñëpp xam nañu ko ci social. Mm. ñëpp xam nañ ko ci mbaax ñëpp xam nañ ko ci souriant. parce que boo ko gisee d'habitude ndeysaan keroog rek maa ngi koy wax suñu benn confrère ma ne ko man bi ñu mujjee gisee récemment bëñ rek ngay gis xam nga fële ca camp pénal muy saafonteeg ñi nga xamante ñoom ñooy détenu politique yi nga xam détenu yi nekk fële ca quartier femme ñoo di waxtaan ak ñoom lii du dara waaw adduna la boo xamante ni yàlla moo ne woon tey lii di ngeen ko dund waaw pen la rek léegi mu jeex te bu jeexee incha allah di ngeen ci société bi kon lii du dara ñun ñii tey mënoon a nekk fi nga xamante ni fii ngeen nekk maanaam di leen masawu di leen indiwaat di waxtaan ak ñoom di leen reconstruire di leen dalal mm-hmm. di leen wan ni adduna moo demee noonu tey ñun ñii mënoon nañ nekk foofu tey moom mi nga xamante ne moom moo dëdd kon tey lii duñu bett ci moom ndax tey doo xamee ki nga xamante ni moom mooy catholique doo xamee ki nga xamante ni moom mooy jullit ñëpp ñu ngi fii gis nañ fi léegi ki nga xamante ni moom mooy maire de Dakar Barthélémy Dias mm-hmm. waaw ñëw def lu rafet ñëw tamit donte sax catholique la mais rafet na tax ñoom ñëpp ay doomu Sicap la ñëw mm-hmm. gis ngeen tey fii artistes yi kenn desul Simon waaw ay ñoom pot kenn kenn kenn kenn desul mais ñoom ñu ngi ci biir te fii moo xaw a fees moo tax dugg ñu si biir mais incha allah loolu du leen ump dinañ leen ko taataanal ñoom bu ñu génnee dinañ ànd ak ñoom convoi bi dëgmal fële nga ne mooy fi ñu ko war a jébalee borom muy Saint-Lazare bu ñu fa jógee aussi nañ dem ci kër ga xool témoignage yi nga xamante ne famille bi dinañ ko def proche yi dinañ ko def ak ñi nga xamante ne ñoom la doon bokkal secteur bi nga xam ci la newoon muy muy aar ñoom ñëpp incha allah dinañ leen taataanal seen réaction fii ci Improd ak Univers Info amaat kon léegi ñu xaar euh, gaañe génn ñu ñu ñu jël leen kenn par kenn waaye lu waaye di wut daal wutal lii ndax décédé kenn xajatu fi amaat lu waaye di wut rek wutal loolu ku nekk tey ji yaa ngi boo sañoon da ngay dugg ci biir église bi waaye biir église moo xat ba kenn mënul accéder foofu kon nag lu waaye di def rek tënkul ci mbaax ak yar moo ko may ah. ndax ndax judd nit judd na toll lu ne am lu ne te amul lii mm-hmm. nit judd na toll lu ne am lu ne te amul lii lii bu ko nit amee rek c'est parce que am na fenn foo xamante ni toll na ko ci nit ñi lii bu amee rek parce que am na leen loo xamante ni mi ngi koy jariñ nit ñi lii bu ko nit amee rek c'est parce que fi mu féete woon nit ñi tey moo tax mu demee nii parce que dañoo toll ci benn monde boo xam ne dañoo toll ci benn Sénégal boo xamante ni fii léegi koo fi faalewul faalewu la amal lu ne mais koo ci yëgul yëgul la tey boo gisee lii nga xamante ni moom la ko nit ñi taxawoo boo xoolee li nga xamante ni moom la ko sénégalais yi taxawoo ndax du wax fans am na ñoo xamante ni du ñu fans mais am na ñoo xamante ni acte bi nga xamante dañ koy gis moom mu koy doxalee envers ci société bi ci bu koor gi jotee ci bu leneen ak leneen amee mënoon na ni man bokk ma ci religion boobu mënoon na ni tey man sama yoon ci loolu mais xoolul loolu mi ngi ci li nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni yàlla ji loolu la digle ci mu ñuy rafetal ci loo xamante ni boo ko dimbalee sa morom du la du la wàññi dara mm-hmm. mu koy def mm-hmm. kon tey lii nga xamante ni moom la ñu gis fii nga xamante moom mooy ci levée du corps bi wallahi man bettuma très sincèrement mais mais mais xam nga lii bettul kenn parce que lii lii moo tax li nga wax léegi rek man xam nga baax moom dafa tënk lépp moo tax xam naa ne nag euh, yëf yi ñu yemale ko fi ba ci kanam après lu ci am rek moom du ump kenn lii moom médias yi séq lii moom gëm naa ne dara du leen rëcc ci lii waaw kon nag téléspectateurs yi nañ gën a toogaat ndax dinañ gis leneen ak leneen ak leneen. incha allah kon ñu ngi leen di jaajëfal te di leen ni resté scotché. ay simili yu ndaw rek waaw waaw waaw abu abu abu ci bi la nekk. abu abu abu bi nga nekk. te vraiment lu mu gàtt gàtt. am na loo loo dund ak ñoom. waaw euh, bon dañuy yàlla rek parce que comme moom moo ñu moom te heure bu ko neexee la ñuy jël. te amuñu ci amuñu ci amuñu ci amuñu ci ndogal xam nga man bi ma yëg décès bi fekk maa ngi Touba dañ ma woo fekk maa ngi waajal julli ñu woo ma wax ma ko am lu ma metti lool parce que c'est un acteur bu nga xamante ni ñun moo moom lañ jiitaloon ci lépp comme ni ko Pape Demba di waxee sunu mag moom lañ jiitaloon ci lépp mu doon koo xamante ni foo ko njëkk a gis li ngay gis ci moom mooy reetaan ji aussi nit ku doon dajale la nit ku doon boole la. un fédérateur un fédérateur voilà. Euh, mu doon koo xamante ni jàmbaar la lool ci yoon bi nga xamante ni moom la nekkoon bien vrai que bokkuñu diine waaye boo gisee ni mu doon doxee ak euh, cofeel gi nga xamante ni amoon na ko ci ñun nga xamante ni nit la koo xamante ni nit ku baax la euh, wax dëgg yàlla wax ci moom sax doo ko mën parce que boo xoolee yenn vidéo yi ak biñ koy mujjee gis ak yooyu noonu mu mel ni dafa xamoon li sunu boroom na mu ci moom. tàggoo quoi qui ne dit waaw waaw mu mel ni sunu borom na moom la ci moom parce que sànq rek maa ngi xoolaat benn vidéo bu mu ànd ak dem ba Demba dem Demba di xëccoog benn copain am Pengole mu ñëw di leen di leen di leen di leen dérailler noonu ba toog ci suuf xam nga reetaan ji neex ji nga doon gis ci moom. man xàmmeewu ma ko woon entre Mouride Tidiane Laayeen catholique non non mm. sincèrement si da waaw waaw loolu la ma Pape Pape Demba euh, bi ñuy waxtaan démb loolu la ma wax mu ni ma Serigne Touba rek la bëggoon. si si si mu la bëggoon euh, peut-être nag nit ñi danañ xalaatee lu ne dinañ waxee lu ne mais euh, sunu borom dafa def day jël ay nit def ci ñoom loo xamante ni yow mi dend ak moom sox doo ko xam te nag bëgg na Serigne Touba ba bës bi nga xamante ni ci la ñoon màggal Cheikhul Khadim mu génn ci àdduna nit ñi nag danañ ni waaw peut su mu yoon bi mu nekkoon mais yoon bi mu nekkoon suñu borom dafa bëri yërmande sunu borom am na yërmande ku wax ku wax ni ci diggante bi nga xamante ni moom la dund ba muy génn àdduna est-ce def ci loo xamante ni suñu borom tey dina ko dàqal lépp loo xamante ni lu koy lor la donc noonu la mënoon a demee suñu boroom nag def na li gën dañuy nangu waaye ku xool lii tey fii buñ taxawee fii mënoo xam kii mooy jullit mënoo xam kii yëdul jullit lan moo ko may loolu mbaax lan moo ko may loolu yaatu lan moo ko may loolu maanaam boole woon doon defar Jean Paul dafa nekkoon nit koo xamante ni wax dëgg yàlla ñun dañ doon jàng ci moom dañ doon jàng ci moom lu bari ci defar dañ doon jàng ci moom ci yaatu dañ doon jàng ci moom ci xam-xam euh, voilà di ko ñaanal rek ñaan la ñu am vrai que wax ji bari na lool waaye sunu borom moom alaa kulli xaal ah, waaw yàlla yàlla yàlla baax na daal medun yàlla bëri na sutura